ci yéen kay El Hadj Assane Gueye yéenekaay yëpp daanaka xëy ñëwaat ci tiis wa woon démb ci wax yi wakaam ak gaal ga fa teer seeg fukk ak juróom-ñetti néew observateur xamal ñu ne gaal ga ndeke mboora la bawoo ak juróom fukki nit ca biir jaari caaroy ba nu mu teer see wakaam ci seede ci ñaar ñu rëccee ca gaal googe kenn ka fekk baax ca mbooro ko des ca Touba Mbacké ñoom ci lañu xamle ni Espagne lañ bëggoon dem ca ku ne ci ñoom ci biir gaal ga fay nga 400 jàpp 500 000 francs ngir jàllale gi kenn ci seede ne gaal gi suuxul ñetti bateau yi marine bi ñoo leen doon dàq ginnaaw si la bateau benn bi daal di mbëkk gaal gi borom gaal ga doon dawal di ko mën mënee ba faf képp ca doj ya ca géej ga am ñu tëmb ñi munta fay loru ministre intérieur Antoine Félix Diome ba tey observateur ne dinañu rëbb ak fu nu mën a ne ñuy organiser yooyu xeeti tukki yu bon tëj leen wala teg leen daani war le soleil moom xëy tiisoo seen ëllëg yooyu mujj nax ñoom yooyu ndaw ci géej gi yéene bu an xamal ñut plan bu nguur gi tëral ngir lijjanti tukki mi ci yooyu anam dëppowul ak yoon jàllal na it yéene kaay bi njaal ak président Sall jëmee ci njaboot yi lorule na ko noonu njaal bu premier ministre Amadou Ba cëbbal ba ca ndar ak ñaar fukki bakkan yu rot démb wakaama ayek fukk ak juróom-ñetti ndaw yu daal di ñàkk seen bakkan te bëggoon a dem Espagne journal l'info ne ay naatangoom ñëwaatit ci jéye jëwoon démb ak jaar-jaari gaal ga caaxooy jàpp yaraax ba ni mu teersee wakaam yéeni kaay bi ne démb na gune ya ku ca yem ca nanu teersee ci géej sa xol tooy yéeni kaay bi di réew mi ak moomeem tukkib làqatu ne gune yi ñoom ñu ngi wadd rek ak a dee ne ay weñ laa tribune ne ñàkk gi la ñuy daw ci réew mi ndax li ko waral ci gis-gisu njiital gëm sa bopp bugaan géey dani saaxee lu ci mel ni wurus bi zircon bi phosphate bi manganèse bi la tribune ne ci dig-digalu Dakar Saint-Louis Kafountine ñetti téeméer ak fanweer ak ñaari nit ñàkk nañ seen bakkan ci géej gi ONG Horizon Sans Frontières moom jàpp ne def état généraux ci tukki mi ci anam yi dëppoowul ak yoon moom jot na wàllu yoon ak yëkkatim barrière yi woon ci buntu kër Ousmane Sonko yéene kaay bi di direct news moom ci gàttal laaj ndax Ousmane Sonko dafa ne citoyen ordinaire am déet la justice sénégalaise mal à bu ne ci kersa ndax ñu ne Ousmane Sonko tuumaal nañu ko viol 2021 ca kenn defu ko mandat dépôt bi mu ñëw tribunal dafa ñëw ak liibaram ca mu ne bu njëkk ci réew mi ñu fi tuumaal nit ci viol ci defuñ ko mandat dépôt journal direct news ne boobaak léegi état bi mel ni ko amit ay jafe-jafe ji tëj ko ak tuuma yu graaw yi ñu ko wékk ci ndoddam yépp bokk na ca woote ngir fippu trouble ordre public dëkk état ak yeneen ca dafa mel ni ñu ne ak wuute daa am diggante Ousmane Sonko ak ku ci mel ni Karim Wade wala Khalifa Ababacar Sall ba tey direct news laaj lu waral état bi doxaleegul dogalu bu yoon ñeel ko moom njiital Pastef ndax dafa am ñu ne lees waxul ci mbiri Ousmane Sonko source aane lu ci di am daal li leer mooy ak yëkkati barrières yi ñooñ ak militant Ousmane Sonko yi def nañu këram ga ca cité ak di dem bay laaj foofe sax ndoxum zam-zam Abdoul Mbaye président acte candidat présidentiel 2024 sekk waxtaan wu yaatu ak observateur tisoo na bu baax gune yeeg barsaak barsaak yeeg bakkan yu bari ci roj waaye mu ne ñaar a waral gune yi dem benn yaakaar gu tas ci ne dootuñ mën a tekkee seen réew ba ca topp foog nañ ni tugal Eldorado ak aljana ci gàttal ca benn motu caa jàpp ci ñaar yooyee état bi mu faw mu def communication bu yaatu ngir xamal gune yi jéey yi leen mën a fekk ci yoon woowee te moom it état bi dekkalaat yaakaar ndax nag danoo war a def jubbanti war ba kom koomu réew mi tëddee neneen Abdou mbay dafa gis ne dogal yi fi jël ba fii ci wàllu njoxim xëy mi dogal yi yamamaay la wàllu politique moom njiital acte Abdou Mbaye gis ne président Macky Sall bu taqee ripp ci wërum candidat gi ngir waa bennoo ko moywul ay risque la cay jël ndax benn mu ne jàppul ne ñoom seen camp dinañ am candidat buy def unanimité bu ñëpp ànd ba ci topp candidat bi muy tànn bu ko président bay ñëw daane moom président ak président bii bees seen diggante mun na am xajam-xajam cré yi gënu fi jële Abdoul Mbaye ne ñoom la ñu xalaatoon mooy defaraat ko maanaam fexe ba recours ak kalaame mun caa am waaye jële fi cré yi indi lu mel ni parquet financier ak yeneen ca doguloo li nga xamante ni mooy dépendance gi maanaam fexe ba indépendance am diggante yoon ak exécutif bi loolee bu nu ko deful yàq nañ wax ja wootey 2024 xit mu ne noonu bañ ñëpp bokk bañ a beddee kenn ku ne kaso sax bëgg a doon candidat na ko doon askan wey tànn waaye mu ngi dànkaafu askan woowee xamal leen ne président du ay caaxaan jaar-jaar la xam-xam laaj yoon wu gudd ca metti la laaj ak lu ci mëni am jiite Sénégal moom jigéen ñi fasuñ ko yéenee bàyyi te góor ñi laas xëy xamal ñu ñeenti jigéen yu taxaw takk seen lafi sër ngir yootu réew mi ci jongantey 2024 soxna Aïda Mbodj soxna Aminata Touré soxna Assom Aminata Diatta soxna Anta Babacar Ngom